na ko il faut pas ñu contrôler suñu bopp ci erreur parce que itam vrai que ni ka am na solo mais dafa am lu ëpp solo ñëpp muy Seydina Muhammad te tey jii su lay jóg ci turu yonent bi la woote jaar ci jóge ci yonent bi jëm Cheikh na Tidiane jóge ci Cheikh Mouhamadul Wali Cheikh Hadj Omar Al Fahim Seydi Hadj Malick Serigne Babacar Serigne Abdou Aziz Al Amine te itam am na solo dajale nit ñi ñu wax leen li nga xam ne mën na dugg seen nopp muy farata ba may ñaan ñooñu toog ñooñu nekk ci buntu tànt bi rek bu fekkee mën nañu toog may oustaz Modou mu wax ñuy wax muy loo xam ne mooy suñu parce que itam ñu ko fi mën a am luñ fi waay mën a wax te du waxtaan yeneen ci bi amul solo te boobu ba léegi mi ngi fi toog te daanaka tànt baa ngi commencé vide ku pare dem ku pare dem ku pare dem ku pare dem bëgguñu loolu balaa kilifa yi di yenn kilifa yi ñi fi toog yëpp ay kilifa lañu sax balaa kilifa yi di dem ñu am ñoo xam ne dañu am parce que am ku soo wuysee nit ku ne dina wuy si ci dalay wuy si ngir lan xam-xam ci wuy la ngir lu mu yokkee diine mi kii dafay ñëw ngir lan damaa sopp Oustaz Modou Fall bi waxtaanee programme kii damaa sopp Oustaz Souley Diop mi woote kii damaa sopp li damaa sopp li yooyu yëpp c'est vrai mais l'essentiel mooy Seydina Mouhamed kon nañu kàddu yi nañ ko lekk jox Oustaz Modou Fall mu wax farata su paree li daw ñu doon ñu ko xam daal koy